Basumo Basumo Mbéré Salam alaikum ñep sénégalais Tay dama né tay fuck life..! car là on ne comprend plus ce qui se passe on ne comprend plus ce qui se passe je vais démarrer d'abord par la Guinée très bref ce qui se passe au Sénégal actuellement et en Guinée c'est le fruit d'un long travail qu'a organisé M. Macky C'est le fruit d'un long travail qu'a organisé Macky Car il avait proposé à Sédou Diallo que la communauté Peul le supporte pour qu'il fasse son troisième mandat. Après, lui, avec la CDAO, ils vont organiser un coup d'État pour destituer le colonel Mamadi Doumia. Demandez à Doumia pourquoi il s'accentue sur l'axe. Demandez au service de renseignement guinéen pourquoi il s'accentue sur Sédou Dalan Diallo. Vous les journalistes guinéens, s'il vous plaît, interrogez l'État guinéen. S'il vous plaît, renseignement, les grands journalistes guinéens que je, que je suis sur l'Internet chaque jour, s'il vous plaît. Posez la question. à un envoyé des affaires étrangères de la Guinée et ils vont vous répéter ce que je vous ai dit. Cédou Diallo a refusé, Cédou Diallo a refusé, catégoriquement refusé. Moi-même, avec beaucoup de Guinéens, on a traité Cédou Diallo de traite non, il n'aime pas son pays, il n'aime pas. Mais si Sédou Diallo a refusé d'accompagner Macky Sall pour son troisième mandat. Le problème de Seydou Dalan Diallo, vous savez, c'est quoi Il veut faire rentrer la religion dans la politique. Il n'est pas du système. Il n'aime pas, pas le système. Donc, vous, la Guinée, si vous ne vous battez pas, Seydou Dalan Diallo ne sera jamais président. Jamais. Jamais. Ça, je vous le dis dès maintenant. Peuple guinéen, je ne parle pas au peuple, ni au malinqué ni aux ni. Je parle du peuple guinéen, les Guinéens qui sont conscients. Parce qu'on a tendance à aller vers une nouvelle Afrique, vers une nouvelle refondation. Même si Doumia a des problèmes avec l'Axe, parce qu'ils savent que c'est l'Axe qui détient l'économie de la Guinée. Mais Macky tu as des problèmes personnels, crypto-personnels avec ces Dalan Diallo. Maintenant, c'est la communauté Peul qui va répondre de tes saletés, toi, Macky Sall. C'est ça qui m'a fait mal. Attendez, l'exclusion là, des étrangers, pour retracer les étrangers, pour pour recadrer les étrangers, je suis d'accord, mais pour les grandes personnes, mais les enfants qui sont nés au Sénégal, est-ce qu'on doit les rapatrier Les enfants qui devaient faire leur BFM, les enfants qui devaient faire leur bac, est-ce qu'on doit les rapatrier Moi, je me souviens quand on était élève, le meilleur de notre classe, mais c'est de Boyba, fils de Sadio. Ba, qui est un multimilliardaire, un grand boutiquier, mais c'était toujours le premier de notre classe qui est né au Sénégal, grandi avec nous, qui a une autre bac. Maintenant, c'est Mamoudou Boyba là. Comment on peut l'enlever du Sénégal Comment Et puis, il gère là une grande banque. Ayo, allez l'enlever là-bas. Pour dire que tu es un Guinéen, je ne suis pas d'accord. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. La politique ne doit pas se mêler à la vie africaine et humaine. Je ne suis pas d'accord. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. L'État, vous ne devez pas profiter de certaines choses, de certaines bassesses pour passer à certaines actions. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas, et je ne serai jamais d'accord. Ce n'est pas parce que je suis Beynoun, ce n'est pas parce que je suis Paul que je défends certaines choses. Non, je dépasse. Moi, je dépasse l'affaire des religions ou l'affaire des ethnies. Là, je dépasse. Moi, je parle d'abord de ma couleur noire. je parle d'abord de l'Union africaine comme l'Union européenne. Carte d'identité. Si tu as une carte d'identité belge, tu peux travailler en France. Si tu as une carte de séjour belge, tu peux travailler en France. C'est le nationalisme là dont nous prenons les cartes de séjour, mais rien d'autre par l'expulsion, par les ravages abusifs comme ça à cause de la politique. Non, pourtant, vous avez tué des Maliens dans les manifestations. Pourquoi vous ne l'avez pas dit, Macky Maintenant, vous, le peuple, nous sommes là. Macky Sall se croyant eux, grand monsieur, il se croit actuellement grand. Parce qu'il était envoyé en Russie par qui Le grand djihadiste, Emmanuel Boun Talib Abdul Macron, c'est le grand chef des djihadistes, c'est le chef des forces occultes. C'est Macron, le chef des forces occultes. Moi, je ne recule pas devant, je ne reculerai jamais devant mes mots. Je me dis Macron, moi, baye djihadiste, Momo, mot, djihadiste, Mali. Donc, moi, je ne recule jamais devant mes mots. Même devant le tribunal, je les ai répété ça. Je ne recule pas. Moi, je suis Sénégalais, je suis rapatrié, je suis Europe un ne là, pas. Pour moi, clair. Macky Sall du ñeu fi dem France c'est ñu tali wacc wàcc Cigar, c'est bi sama vidéo lañ teel a xàmmee ma contrôler France dañ ma fa contrôler Deme. Je ma contrôler man on m'a contrôlé là-bas hier là où on m'a jamais contrôlé maintenant, on va dire quoi Que la police française n'est pas complice. Des meurtres là, on ne peut pas amener Macky Sall alors, ces pays n'ont pas amené Macron parce que c'est Macron le principal commanditaire. Macron avec France le principal commanditaire Macky Sall bu amee fitu ñëw ba France na day def troisième candidature day gagné l'élection. parce que Bayam Macron bi muy sucé il suce Macron je veux la vérité bu ñuulee ñuul na bu weexee weex ba ñun en tant qu'africain on est là on nous malmène à cause de doomi Karam di Macky Sall un criminel Macky Sall c'est un criminel c'est un lâche c'est un va pied c'est un égocentrique Quand le veuille ou non kii parce que un chef de l'État ne peut pas être ivre démb Macky xool leen Macky Sall démb man moo depuis suba grand xanaa Macky Video en live la ko doon seetaan ma nga fi partager na ko sama boy yi nekkal sama clan bi partager na vidéo yi gis nañ ko man live la ma boy bi wo appel vidéo da man mandi dem ba xamul fi muy taxaw mandi ba bi muy dem dañ ko japp man ngeen foog ne man waxi mandi kat bo ne signé ko dina ci japp Macky Sall wax fi woon ne cinq ans lay def tok ba mu nekk ne na conseil constitutionnel wax biñ ko waxee daf leen ne fa la ko bind fu ko signé dem Macky Sall mandi def tak kontan ay kontanam tok di délirer bir France

ak kuréel yi koy yàq dina tas Pastef li ma koy wax c'est clair yéen bàyyi leen di déglu ay troisième mandat Macky dafa déclaré ne moom day gagné 2024 wante Pastef da koy tas nañu wax wax ji muy dee te bàyyi leen waxu troisième mandat nee naa leen man sama xeex du ay troisième mandat man sama xeex mooy Ousmane Sonko dem élection bokkutuma gars yi vision ay troisième mandat yi du ko def loolu xoola doful bu ko déposé Sénégal dañuy astafurlaa waaye dañ koy dóor bal mu romb ku nekk jaar mais du ko fi defee moment bi ñoom ñëpp jog nañ ñëpp benn wax la ñuy wax nañ leen valider candidature Macky Sall ku bëgg a bëree bëre ku bañ bëree bëre ba tax tey Akhenaton maam Matar Gueye tey def ma bett moom warul woon tontu Akhenaton père Matar waro won tontu ak ton c'était impossible du won yow ya am capacité tontu ko dedet kon tay yow ma nga ak na ton te ne ngeen yeen Jamra da ngeen solidaire ñun buñu solidaire fo leen jëm ak dossier yi ñu yor yeb buñu solidaire fo leen jëm man duma sax wax ci yow man ci Abdou Latif lay wax moo ablay wad ak trafic yi mu doon def ci ay affaire médicament yi ba loolu lañ jëlé bakkanam xam lu bari si réew mi man mom yow mata dama la jéggi ci Père Latif la jëm trafic yi mu doon def yëpp ñun xam nañ Sénégal nu muy doxé xam nañ business nu muy doxé ki lim wax ci sëñ Mbaye Sy Mansour ak yoy ça regarde pas Macky Sall mu ngi ray nit ni pour lan yeen jamr gennu len wax ne crime lan la si diiné wax ak fitnal nit xam nga ray nit mo gën fitnal ko Macky Sall lu mu def ni jël boy tej len ci kasso wek yoy yow waxo ci nga jël sa conférence de presse tu te permets de parler à Akhenaton moy wax ngay weer suñu ben grand Diouf ndax lan ah kon yow Diadio Diouf ak grand Bangoura xam nga leen parce que dañ la doon financé léegi sa ISEM la ñu nangootul financé ndax yow yaa fi def marché góor jigéen moo tax association yi joxatuñ la financement tey yow nga sañ tey osé yow tudd tey Diadia Diouf grand Diadia en live man bi nga tuddee tuuru Diadia Diouf Matar Gueye tey nar moon wax si yow du wax si yow parce que Père Latif ñun xam nañ dëkk bi ni muy doxee Akhenaton lucide men la Akhenaton ñun lucide men la on le connaît mais yow xam nga ñun xam nañ wax ji du bëri dañuy dóor juin da ngay dóor juin xam nañ dëkk bi ñu ngi doxee bul dof Père Latif moo la dàq dóor yi bon bul dof yow Père Matar bàyyi leen di wax naan ay lu nga kii da ngay duul boo ne li ngeen criminaliser lii li ngeen criminaliser lii moo tax Akhenaton c'est pas vrai tu mens ça moom Matar Gueye tu mens sur toute la ligne commissaire Keita tey bu sañoon wax bu waxee dëkk bi tàkk mais grand Diadia Diouf nag bi nga ñëw fenal ne moom moo jiite association góor jigéen mag bi tu mens sur toute la ligne nel moom moo leen service servir interlocuteur montel leen seeni projet pour ngeen am financement ci ONG góor jigéen yi te yow yaa doon demandeur Diadio Diouf n'a jamais été demandeur Grand Bangoura n'a jamais été demandeur ñooñu xoolal duñu sax ay góor jigéen xam nga lan lañ ay manager Moi, ñi nga xam ne dañuy bind projet non xoolal tey Matar Gueye waa léegi yow waa Jamra yéenay porté plainte léegi man combat bi man maa koy on va déposer des plaintes pour citation directe ndax yéen a yow yaa tudd seen tournée ñoom ñooy jiite ay association góor jigéen te man ma xam ne yéen association góor jigéen ñoo yore Jamra parce que gars yi nangootuñu financé yéen a fi marché marché góor jigéen kenn dootu leen financé jarutul ngeen di tudd tuur nit ñi c'est trop lâche ce que t'as fait affaire du xalif général yi moom du ma ci wax affaire khalif généraux yi duma ci wax mais seigne Bass Abdou khadir mafia bi daw ni yep mo koy def journaliste yi ngay gis ñuy murit lu ñew ram ram lok khalis ba nga genn carrément ci seigne Bass Abdou khadir lay genné mo gëna a ci république bi ndax mom Sonko lay bañ gis c'est un grand laaj mec là so xey muy serigne seigne du gat nek si jéggi di ray sen tuuni rek nga fi nekké trop sale sa gala may wax légui ñu dem ci affaire Macky Sall lim leen le 25 le cinq na Sonko génn bala 20 wala Macky discours am boobu na ngeen ko fay bu xasee def discours jeex na dinañ xeex bëgg xeex bañ xeex te les morts sont déjà la Juan Branco tey wa dégg tey wane na image yoo xam man man gisuma ko woon su leen ne gis naa image yooyu waxuma dëgg gisuma ko woon Juan Branco li mu yor ci preuve man yoruma ko un cinquième li Juan Branco yor yoruma ko moo tax gars yi ñoom Akhenaton Kayz-Off moo la gars yi félicitation yéen grand tabax yéen ñuy joxe lépp félicitation boy Ziki félicitation boy Ziguinchor lu ñu naan patate ñor na ba noppi de bëgg a lekk bañ lekk gars yi dañuy xeex par force dañuy xeex Macky Sall nee nga da ngay def troisième candidature da ngay tas passif yow yaay gagner 2024 manam sa parti moy gagner 2024 bo tassé passif ba paré manam élection yi même pasif, tassé passif dang kay nak parce que fam nga tejj Sonko ndax wala mom war nga dor ko résidence surveiller comme ni Denis Sassou Nguesso def bu Bobi Wine xam ngeen da ngeen fàtte Macky Sall limu def ni deuk gis ci Congo ci Denis Sassou Nguesso gis dem len seeti élection yi Denis Sassou Nguesso ab waykat moo ko gagné ab rappeur Bobi Wine moo ko gagné ñu jël ko dóor ko résidence surveillée rey population bi tuuti France jàpp si ana coow lu Denis Sassou Nguesso tey leen ko recevoir Élysée no moom ak Ali Bongo ak ñu tous les dictateurs sont là autour de Macron tous les dictateurs les criminels de l'Afrique sont là autour de Macron tey ñoom ñëpp a ngi fii France toog ndeyam di reer ak Macky di reer ak Macron te nag xaraamu chefu terroriste yi

international di du moins ñom ñu ngi fi France Macky Sall sax ñu wax li sax ñu def ñom ngeen ni maître ndayam en mal touriste bu mu fi am ren boy booy sor Cap Skirring eh touriste yi xoola metalé en mal ñu ñibi ils n'ont qu'à rentrer chez eux drapeau français yi France di leen jité def leen comme nu Mali def gënu leen doon goor tal leen ndayu lepp on assume tout xam nga ñom dañuy def ay appel au meurtre ay ray leen diw ray leen diw ñun tout ce qui est français là, wax de même nous citoyen buñu muy français nous avons bi pour muy clair ñoo faire, bi xam nga soyons des maliens ou des burkinabé pour gagner ça Nous, nak nañ ko à être rapide sur les actions être battant sur les actions Boy.

saar ak yooyu yëpp mën ngeen ko moom gis nga combat bi foog ñu tëj Dakar ba noppi réglé ak Macky Sall lu ñuy réglé ak moom. armée bi keroog lan laa leen wax comment ay chef police doome xaraam nekk sur le terrain Jérôme Bandiaka ki di diriger wax naa ko keroog am ñu ma woo naan ma da nga ay homme de tey Juan Branco wax na ko wala waxu ko. sur le terrain c'est Jérôme Bandiaka ki qui dirige sur le terrain les opérations amul colonel amul kii donc yee ñiy sol tenue amul dara luy lang seen tuba yi dara ñun ay góor lañ am na luy lang te du wadd mais yéen vous n'avez rien sous vos culottes rien du tout y a pas homme de tenue militaire Sénégal buy sol nday ceinture takk ko mu dëgër y a am takk leen seen bretelle ay bécco ngeen di takk ay doome xaraam ngeen yéen ñëpp comment Jérôme Bandiaky ki mën nekk un civil ñëw ci terrain bi opération yi toll nii de grande envergure ngeen bàyyi Jérôme Bandiaky di diriger ba gars yi di dóor ay bal rey booy yi quoi nii ndax lan Jérôme moom c'est le boss mu ngi présidence yéen ay doomaraam li leen tubaab bi defoon ñëpp ñu sosoon si gouverneur colon yi ñoo moom dëkk bi Sénégal nii la mos a doxee depuis temps PS nii lay doxee da ngay gis benn pas PS boo xam ku mu neex rey PDS nii la doon doxee Macky Sall ñëw doxee nii moo tax gars yi bu lii yëpp yeesoo balaa falak keneen nañu toog signé si ay këyit man moom Sénégal li mu leen di wax rek élection 2026 la mën dem Maki moulay neex moulay nakari Sonko bu demul le pays sera ingouvernable au meurtre def mais do len ay goor ngeen ngeen Casamance di dugg xex billahi da ngay tas le 25 discours ba vous jëlal mesure yi ce mesure bamelu nday sax xamoko ko te ñun sulu nañ ko ba paré ba def fa fay def ñoo la gën woyu vrai lâche nga yow Macky Sall li nga waxon Sénégal yëpp doomaraam nga ci def tamit xaram da nga gis ay doomaraam ñëw fi France mandi toog doomaraam ni France Macron le chef des djihadistes là qui dirige qui a pété le Mali qui a pété l'Afrique de l'Ouest moo tax le jeune début là il est en train de le péter yéen vous pensez que nous on a peur des Français là ou on a peur de péter les institutions françaises qui sont au Sénégal cette fois-ci, on va voir. Les jeunes, même si l'armée est installée devant Auchan, tout ce qui est non français, on pète. Comme France, nous déclare troisième candidature. Tout ce qui est non français, on pète. Même si l'armée est installée, quitte à ce qu'il y ait des morts. On s'en bat les maintenant. La guerre, comme à la guerre. Il y a une dofoulen, ça, il y a un combat bi un fi ngeen ci yegg ñun moment yi bañatuñ dara deew ak dundu si man police ñëwee contrôlé man fuñ ma mosul contrôlé man léegi man ngeen en incitation ci net bi laay jàpp xeex ak yéen nokk seen ndey sur le terrain yow Macky te yow suba fekk na la France man maay defal sam bopp descente ak éléments yi demoon concert ba on va voir ce qui va se passer jaajëf léegi